waa bis ni tey di alxames le 3 décembre UNAPAS ñoo daje ak euh, organisation professionnelle yu bari yu mel ni collectif No Lank UNAMS réseau des CLPA ak REFEPAS femme transformatrice ñuy oote oote boo xam ne ni mu ngi jëm ci li ñu njëkk paa yi njëkk muy grève te sunu gaal yi mareyeur yi te oto yi ñu dakkal bépp activité boo xam ne nii euh, jëm na ci wàllum géej bëgg jëm ci mars boo xam ne ni doxub ñaxtu la bu ñu war a amal ca place de l'obélisque ajjuma la 4 li ko commencé trois heures quinze heures ba 19 heures li ko waral nag mooy jafe-jafe yi napp Sénégal toll di nappagu ndaw bi ndax ku ne gis na coow li bari na lool jamono yii yëpp ndaxte nguur gu nekk jaar na fi Senghor ñëw na mool yi nekkoon ay mool mu dem bàyyi leen fi Abdoulaye Wade ñëw Abdou juuf ñëw ba dem mool yi dooni mool Abdoulaye Wade ñëw ba dem bàyyi fi mool yi ñu nekk ay mool Macky Sall mi fi nekk tey di président de la république bu fi jógee it du tere mool yi des fi doon ay mool ba tax na métier mii nga xam ne ni moom mooy métier mool di géej gi géej gi ñuy dem pour jàpp jën yi di ko indi moom dong mooy li nga xam ne ni moom la ñu yaakaar secteur de la pêche di ko dundee Sénégal nag nekk réew moo xam ne ni li ñuy dunde jën am na importance bu bëri boo xam ne ni am na ka ci seen wér-gu-yaram ba tax na jën woowu noonu tey nekk ci yoon woo xam ne nii euh, lëndëm na lool ci bëtu askan wi ak ñi nga xam ne ni ñoom ñoo ciy yëngu ñi yaakaar géej lool ñi yaakaar géej ñëpp nekk ci jafe-jafe yoo xam ne ak guddi yoo xam ne bët setagul jàkkaarloog li leen koy xañ te ressource bi nga xam ne ni moom mooy ressource bi ressource su réew mi doon sunu moomeel doon moomeelu waa réew mi tey jii li ñu féete ci côté napp gi tey nekk ci loxo yi ñoo xam ne ni dañ ñu ëpp doole lool ndax ko sañ a not sa maam di leen yeew di jàpp buum di jaay saña fekk say maam rey leen kooku bu amee accès ci sa ressource na mu koy du ci am benn yërmande même bu mool yi doon tëdd di dee ak xiif ñoom nasaraan yi duñu ko yëg ba tax na ñu ngi oote di yëkkati suñuy kàddu ca kaw di oo président de la république di ko bàyyiloo xel ci napp gu ndaw gi ne nappagu ndaw gi sooxe na lool jafe-jafe yi bari na fi lool ba tegu suñu kaw ba lëndëm suñuy bët ba amatuñu yaakaar ci avenir bi nga xam ne ni ñoom ñoo war a ñëw ëllëg loolu tax nag étape bi ñu njëkk ñu jaral tey muy ñu grève grève bu 72 heures ñetti fan yoo xam ne danañu bànk suñuy loxo duñu ci nappi du ñu ci dem géej mareyeurs yi fekk si si muy waa UNAMS femme transformation si fekk si ñu si réseau de selpea yi ñëpp jàpp ci waa non lank ba jàpp ci ak ñi nga xam ne ni ñoom ñooy consommateurs yi kon tey ji loolu noonu tey ji ñu jóg dafa nekk première pas ci li ñuy yaakaar ne suñu ko yëkkatee def ko dana bàyyiloo xel autorités yi ci secteur bi xam ne jafe-jafe am na suñu ci amul saafara incha allahu du ca yam danañu jéggiwaat xoolaat leneen lu ñuy yaakaar ne bu ñu ko defee dana ñu bàyyi xel ootew nu nag violence ootew nu xeex ootew nu leen jàmm lañu oote te lépp lu ñuy dugg aussi ñu jaar ci si yoon mooy ñu dem wàcc ndànk dox fësal sunu ñaxtu ngir jafe-jafe yi tegu sunu kaw mën a teggeeku li ci gën a rëy ñàkk jën gi moom mooy gàllankoor koom-koom bi ñu war a mën a am pour dundee ko ndax moom la ñu yaakaar li ci toppa lañu am war ko dundee kas néew bu ñu ci waree utaat matériel yi nga xam ne moo nu war a yóbbu ñuy dem day doonaat yeneen jafe-jafe lu mel ni motooru gaal yi tey CFAO bi yor monopolu monopolu Yamaha di ñu jaaye machines yi prix yoo xam ne jamono bu nekk day gën di yokk di gën di seer ñu ngi ciy bind di ci dox di ci wax mais amuñu ci benn saafara moo tax ñuy yëglu ñu ngi yëglu foor di wax président de la république na jël ay responsabilités te xam ne ñun askan wi ka fi teg dañu am yaakaar ci moom te ñun tamit dañu bëgg ku nu sàmmal suñu ressource ku nu sàmmal suñu géej gi bato yi bàyyi suñu jën yi mu wàcc ci pêche artisanale man ka napp parce que amuñu doole ji ñu am ñoom pour mën a yegg fa ñu yegg te ñu yaakaar ci géej gi dafa bari lool loolu ñu ngi oowaat képp ku di sénégalais te ñu xam ne réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk muy docteur yi muy menuisier yi mécanicien ak fépp fu sénégalais ne rek ñu ngi leen di woo ci bisu ajjuma palace de l'obélisque incha allah te képp kuy ñëw bul fàtte indi sa mask lépp lu ñu fa taxal balaa ñu fay jóge bu ñu ko fàttee fomp muy mbuus muy lu manti doon bu dee mbalit nañu ko for bu ñu fay jógee ñu xam ne ñun ñëpp jàmmala ñu woote muy mool muy mareyeur muy ñëpp képp kuy yëngu ci wàllu géej di tàllal loxo tamit euh, collectif ñoo lànk di tàllal loxo ñépp képp koo xam ne nii rek euh, bëgg réew mi dox ñor na la ñu ngi leen di tàllal loxo bis boobu di ajjuma 3 heures suba euh, ba 19 heures ca place de l'obélisque incha